di leen wax ne len espace Sénégal service binga nga xamantene mom le fi président Macky Sall indi ci département Rufisque daf ko fi tabax pour mën a population Rufisque rawatina gori yi rawatina mais aussi ndaw ñi ñi nga président Macky Sall tay japp na ne fi Sénégal tol nga xam c'est plus de 75% de jeunes jàpp na ne jeunesse boobu dañ leen wara accompagner lolu mom motax mu tabax cet espace Sénégal service pour bép jeune bo xamante wala bép jigen bo xamné tay soxla nga liggéey soxla nga financement wala formation ñu mën la accompagner ci ci lolu mais également mu bëgg nak lépp lo xamné dafa nekk wutum këyit ci administration bi tay nga soxla permis de construire ci département rufis boo ñëwee fii am ay collaborateurs yu lay accompagner ba nga jot ci ci lu gaaw mais également bépp service boo soxla opérateur yi fi ne war nañ la mëna jappalé ba nga jot sa kayit ci ay anam yu gaaw té do soxla déplacement parce que bërëb bi dañu ko am ci 45 départements yépp bërëb bi de dafa nekk un espace numérique boo xamante day jokkoo de manière instantanée ak un département au Sénégal donc lolu pour yombal vraiment wutum la population ou donc Rufisque ñu ngi vraiment ngeen fréquenter donc le lieu donc l'espace Sénégal Service Nous nañu sax que vraiment département Rufisque bokk na ci département yu dynamique en matière de fréquentation de jeunes et de femmes donc lolu ñu ngi féliciter di ci remercier dilen wax ñi fi nek à votre service donc accueil bu baax lañ leen di té képp ku fi am rek soxla ci walu bo xamné gouvernement bi mom mo koy joxé de fi dinañ la ba nga jot ci